jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen ñaanal jàmm ju bari te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu réew mi jàmm di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi euh, di leen fàttali ni am na émission bu ñu fi defoon démb mu di kook nga xamante ni bokkoon na ci accident yi euh, yàlla sunu borom dogal nag ñun ci lim ñu wax ci la ñu sukkandiku que muy état jàppale wu ñu euh, lim ñu wax que mooy samay moyenu bopp laay demee mais yàlla dogal na nag people 221 li ñuy wax rek. du jël ci dégg naa wala wax naa wala foog naa wala yaakaar naa toppaat nañ ci suñu enquête ba jokkoo ak moom ba mu xamal ne ah moom kat jox nañ ko un million. waaw loolu nag démb lañ ci doog am ay renseignement bi ñu tëddee ci guddi gi euh, di leen wax ni noonu la demee tey nag maa ngi ak sama consultant ah muy muy muy Jili Baxdaat ah consultant people 221 mu ngi nii ah tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom combat yi nga xamante am na ci weekend bi mu di Marley ak euh, Sokh di Ada Fass ak Zarko mais tamit grand combat yi nga xam ni jot na fi jàll fas yéene ci Cheikh moom waxtaan ji lañ la bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waaw ñu ngi ñu ngi nuyu Euh, mbokk internet yëpp di nuyu ñiy suivre people 221. sa kër. Mhm. ah ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla lépp luñ fi waxtaanee rek mu jëm ci làmb doon loo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. lu mucc ay bi lay doon. Mhm. jili bala maa ñëw ci waxtaan bi. Euh, combat yi taxaw. muy ci ci ci ci ci ci grand combat yi yi fi jot a jàll. ci grand combat yi di ñëw nii. ban jàngan nga am ci loolu ci tolluwaay làmb. waaw ci tolluwaayu làmb jàngat bi ñu ci am mooy combat yi ñëw nii grand combat yi yëpp wax dëgg yàlla ay combat yu neex la puisque jàpp naan fii ba mois de juillet. <laughs> parce que dimanche yëpp jël nañ ko samedi yëpp jël nañ ko te combat yëpp. <laughs> combat bu ci nekk boo ko seetaanee di nga doyal làmb mandi parce que dañu gis ni saison bi vraiment doon na saison boo xamante ni ay combat yu neex am na boo xoolee combat bi passé Bulldozer Thiatou Yoff ñuy encouragé Bulldozer di mel ni saison bi ren daal vraiment euh, indiwaat na daal. waaw saison bi indiwaat na làmb puisque saison bi mooy saison bi nga xam ne par exemple moom moo gën a moo gën a gudd presque ci saison yi ndax prolongation bi ñu ci def ba pare doon saison boo xam ne nag promoteur yi vraiment tamit dañ leen ciy féliciter puisque ñoom ñëpp nekk nañ en activité quoi. ñoom ñëpp nekk nañ en activité ba pare wax dëgg yàlla dat yi gaa yaa ngi góorgóorlu daal saison bi daal saison bu mucc ay ayib la làmb yu neex yëpp daal. yenn yi jàll na yi ci kanam a gën a neexati booy seet kon saison bu baax la quoi. bala maa ñëw ci combat yi am ci weekend bii nii euh, combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux gars yi doon ko xaar ñëpp ni bokkoon na ci combat bi nga xamante ni day sauver lamb à nos grandes surprises ñu xëy ñu ni combat bi Ama dafa am blessure combat boobu yaakaaroon mën mënu indi handicap ci lamb. waaw non xam nga lamb moom combat bu bu bu médical dugg rek. combat bu médical dugg rek. ba gars yi xool ko xam ne médical dugg na CNG cassé ko rek ni kii mënta bëri ndax dafa am indisponibilité ndax dafa dugal médical rek wax dëgg yàlla loolu bu amee handicap am na. handicap mooy dèjà li nga xam ne moom la ñu waroon a def defuñu ko ba nga xam ni par exemple ah, làmb ji gàllankoor am na ci mais kooku rek premier handicap bi mooy promoteur bi investir xaalisam ba pare. ak deuxièmement ah, supporters yeeg waa amateuru làmb yi nga xam ne ñu ngi doon xaar bis bu mag pour dem ci loolu kay handicap wax dëgg yàlla kenn ñaanu ko yàlla. lu yàlla lay dogal la de mais kenn ñaanu ko yàlla ci làmb. ci wàllu médical yooyu noonu. Euh, maanaam CNG li ma bëgg a xam ñoom dañoo am seen médecin bopp boo xam ne moom mooy vérifier mbër mi wala mbër mi moom mooy am médecin boppam boo xam mu xool ko mu jël kayit boobu jébbal ko waa CNG. CNG dañoo am seen euh, docteur bu bopp. Mm-hmm. mooy un premièrement mbër mi bu fekkee dafa gaañ école de lutte ba mu war nekk wala mbër mi en personne dana am médecin bopp médecin boppam boobu bu fa demee mu defa ko certificat médical. cela ne veut pas dire que ni boobu da koy déposer rek nu kase làmb ji wala nu fomm làmb ji mhm. mais bu fekkee par exemple da ngaa jël benn médical yóbbu ko CNG da lay euh, yóbbu contre expertise ci beneen médecin mooy médecin wu CNG kooku moo lay xool ba xam blessure bi c'est avéré ou non bu dee dëgg la en retour moom mooy wax CNG ni leen kii blessure bi xool nañ ko mënta bëre ñoom it ñu soog a jël décision mais doo dem rek fekk sa infirmier wala sa médecin mu jox la kayit làmb jaare ca yàqu déedéet. Mhm. tey bi loolu amee naka nga gisee jàngatu Gris mu mel ni dafa dafa dafa dafa xaw a mere sax waa CNG ba ci Ama Baldé. ah Gris Bordeaux lu mu jàngatee lu mu wax ci jàngatam. ah mais mais mais mais combat bu demee nii parce que ni ma ko déggee mu wax dafa mel ni moom combat boobu pare na ci ci leneen lay xool. gribordo Bordeaux mënut a boppam ñu ko yor école mi mën nu ko administrer ci làmb parce que nag administrateur u làmb ñi nga xam ne ñoom lañ dénk làmb mooy le CNG loolu CNG moo ci war a wax Gris Bordeaux combat la jël nu jox ko avance mu am dat adversaire ba am médical dugal ko xam nga lu mu war a def xaar ba guérison ñëw mu dem bëri ji wala guérison ñëwul nu libéré ko toog ba date line bi jot nu wax ko waaye du moom mooy jëlal waa CNG décision non non non c'est un professionnel moom tamit ñi mu àndal tamit ay pro lañu mais nag tribunalu làmb CNG la CNG mooy définir. ah làmb jooju fu muy mujjee mais du ko ne da ngay wax li la neex rek aussi quoi. mais jàppoo ni aussi tamit loolu noonu mën na xaw a andil euh, Ama Baldé tout empêchement ci carrière am parce que boo xoolee presque cinq ans wala quatre ans ngi nii bëriwul te ci ku yor kër aussi ak ñaari combat yi nga xam ne yëpp vraiment yàqu na. Ama Baldé vraiment yërëm naa ko du ma blâmer mais war nañu xoolaat bu baax ñoom tamit ni ñuy taxawee stafu Ama Baldé le grand perdant dans tout ça c'est Ama Baldé. un jeune lutteur boo xam ne bu bëree mu neex bu feccee mu neex nit ñi yàkkamti ay combat na fàttaliku ñu 2018 la gë moom la gëj a bëri bi mu gëjee bëreeg léegi bi mu jotee avance moog booy ñaan noo jotu ndoo avance kii dem ci Papa kii dem ci Sa Thiès booba ba léegi bëriwul waa ji bëri quatre fois ci kawam booy ñaan mhm. booy ñaan bëri ci quatre fois ci kawam su su yóotuwaatee roi des arènes bi cinq lay doon quatre fois. jëlal quatre fois quatre-vingt mille nga xam ne ñaata la ci budget trois cent et quelques millions yoo xam ne dafa dugg ci benn mbër benn mbër bi taxaw sur place. Mhm. mais kooku handicap la. loolu wax dëgg yàlla estafam war na noo xam ne Ama est le grand perdant dans tout ça. Mhm. léegi nag le gagnant mooy Boy Niang ndax Boy Niang bëri na quatre fois tey gis na adversaire ci kanamam boo xam ne mooy le roi des arènes te mën na ko jëli te génn na ci combat ba pare. wax dëgg yàlla nag làmb coow la li muy bari bari ku ci nekk la ngay jël sa kër bàyyi nga ko yóbbu ak sa kër. combat boobu sax feran naa ci woowu béykat yi Modou Lo ah, jël na avance bërgi dem ko déggee ci live bi mu doon def moo ko euh, kii di tamu nekk li TV euh, nu mu tuddati. waa li TV waa li TV gis naa seen benn live. nu ni Modou Lo mel ni jël na avance. avance su Boy Niang. nga yooyu yëpp maa ngi koy dégg nu ni Modou jël na avance booy Boy Niang Modou Lo combat la combat bu neex lay doon. waaye nag comme làmb yi médical yi dafa bari CNG coow li bari fi mu toll ni groupe WhatsApp boo dugg yaa ngi dégg coow li. ñu naan kii dugal na médical kee mi nga xaar kii kii guérison nangam di nga dans tout sax li ma la wax rek administration làmb ñiy administrer làmb mooy le CNG mooy définir làmb yooyu am. parce que ku ci jël avance hors site tamit taxul nga bëre ku ci waxaale combat hors site taxul nga bëre parce que CNG ñoo war a concerté wu ba pare. génne décision yi ni lii mooy am lii bu amul lii mooy am. kon da nga jàpp ni Modou mënul bëre ak kii di Boy Niang fileeg libéré wul Ama wala waa CNG libéré Ama ak Modou Lo. man ne di nga làmb coow lay bari rek mais Modou Lo Ama Baldé Boy Niang ah Gris Bordeaux fu làmb jëm le CNG moo koy définir ni mu koy définir concertation seen biir waxtaan. réglementation làmb convoqué acteurs yu ko seq wala nu convoqué seen i dirigeant ni leen lii ak lii ak lii moo mën a tant que génn nu def sa communiqué la ñi ci des kenn ku ci nekk dangay ngay wax li nga xam ne rek yow moo la arrangé mais làmb tamit daa am ñun ko dénk pour nu administrer ko il faut s'attendre à ça di nga làmb saret du jiitu fos plus vite que la musique on danse mal coow lay bari rek. mais foofu mais CNG dinañ wax fu làmb jëm. mais foofu ji am naa lu ma fay laaj que mooy léegi foofu promoteur bi muy décider. parce que promoteur bi jël avance jox ko Ama Balde jox ko Modou Lo tey Modou Ama Balde dem jëli beneen avance Modou dem jëli beneen avance léegi CNG moom promoteur bi lay waxal pour mu bàyyi wala dañuy rembourser promoteur bi. di nga le promoteur ni mu jëlee xaalisam dem dugal ko CNG am fa dat ñu jël licence ñaari mbër yi yóbbu ko commission arbitrale ñu dem jël combat bi régulariser ko bu làmb amee problème yoonam nekkatu ca xam nga promoteur lu mu war a def déglu CNG. ni ñu koy administrer moom noonu la ñuy administrer lutteur bi CNG li ci war dina ko def. dina woo promoteur bi ni ko lii moo mën a nekk defal lii wala deadline bi bu jotee ñàkk nga li wala boo deadline bi tant que jotul sa xaalis mi ngi fi sa combat moom nii mooy nii nga mbër mi nan ko woon ni ko diw nga war a ma mënoo ko fee tëb ndax date bi jeexagul mbër yi nañ leen woo ni leen libéré nañ leen ndax deadline bi ni mu leen waxoon temps bi jeex na. yooyu yëpp définition yëpp CNG moom moo yor prérogative bu wax ko mais du ñi nga xam ne ñoo mbër yi ñooy tëb rek di wax nangam ak nangam ndax réglement làmb dañ ko dañ ko réglementé aussi. d'accord nekk nu ci ci sport la nekk quoi foog ñoom aussi ñu dal tey. Mhm. déglu lan lañ leen di wax. d'accord ma ñëw ci combat bi nga xam ne moo war a am samedi ah. mu di Marley ak soq euh, analyser ma combat boobu. waaw Marley soq combat la boo xam ne combat bu neex la. Mhm. kii ci victoire la jóge kii ci défaite la jóge boo xoolee forme ñaari mbëri nañ taxawee. da ngay jàpp ne soq moo ëpp doole mais volume ak doole aussi du benn te maar la dafa am lu ko ni ñu doon jooyal mooy doole te ni ma ko mujj gisee liggéey na ci doole kon combat boobu il faut s'attendre à tout kon da nga jàpp ni euh, soq ëppul doole ki nga xamante ni mooy marle ëpp ko doole mhm. moo ko ëpp volume mhm. moo ko ëpp gabarit mhm. mais ni ma gisee marle nii soq ëpp ko doole mën naa bëreek moom d'accord ndax doole intérieurement lay nekk ci nit. d'accord ma ñëw ci seen communication euh, Marley mu mel ni combat bi daf ci jël ay engagement autant Sokh lañ doon gis moo daan wax mbër mi foo taxaw dama lay def lii mais Marley dañu gis ni day jël ay engagement ñeme Sokh à 100 pour cent est-ce loolu baax na ci mu bëree ak ko ak loolu. baax na ci moom xamul tax Marley day bërewaale sañ-sañ bërewaale capacité bërewaale ci xelam mën a bëre mën a bëre la Marley bëgg a indi foofu. Mhm. ndax Sokh daa dugg géejawaay bëre mbëru géejawaay mhm. moo xam ne mook moom moog moog maar la ñoo démarrandoo ñoo bokk ñu ñuy bëri d'ailleurs bañ ne ko ba mbapat sax bi ñu bëree ñoom ñaar danoo bëree ban athlète bëreetuñu. Mhm. muy muy Pambaay. Mhm. te Pambaay xoolal poids bi soq amoon bi muy bëree Pambaay ak ni Pambaay toll. Mhm. mais soq yanu wu ko dóor ci suuf ay avertissement lañ ko gagné. mais Marley bu suuree loolu moom ba pare. liggéey ci doole loo xam ne boobu Pambaay ba muy bëreeg moom amu ko woon. mais jàpp na ne ci ay qualité moom facilement war na mën a daan soq. ngëm-ngëm la lool moom ngëm-ngëm la waxee rek. combat bi fan la mën a yóbbu Marley parce que boo xoolee ci làmb dafa mel ni Marley dafa xaw a am tuuti retard. waaw xam nga on peut sax làmb mën nañ laa jiiñ retard mais làmb ji nga làmb mën nga cee tardé benn weer ñaari weer benn saison am benn combat dabe ji trois ans wala cinq ans. Mhm. làmb daan dem la rek daanu xaar. Mhm. Marley soq ci defet la jóge mais li muy jóge jóge ci defet mbëru coow la mbëru gox la mbër bu am ay ay supporter la tey bu ko Marley daanee ku koy bañati. kan mooy mën a bañati Marley Marley dafa def ay preuve de dafa jóge ci ne ko réel mu doon champion ñëpp defe ni kii ko ëpp doole mu ñëw daan ko kon bu daanee soq day am feneen fu mu ko yóbbu que combat bi dafa am enjeu aussi. ci wàllu xeex ñoom ñaar kan moo ëpp avantage. non ci wàllu xeex moom ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla bëre la gën a mën a xeex. Mhm. duñu ay ay puncheur quoi ay dóor mu daanu wala gaañ nit affaire yooyu non ñoom ñaar ñëpp bëre la ñuy indi seen yi ma jot yëpp bëre la ñuy indi quoi. Mhm. mais gisaguma nuy kawute ay nit wala nuy dox di boxe yenn boxe yi bëri daal laa leen gën a xamee. Marley attaqué Sokh ci combat bi est-ce que du risque ci moom nga yaakaar ne jotul mu taxaw xaar ko déglu ko. non Marley néewul day attaqué Sokh ñoom ñaar ñëpp naxante la rek xam nga booy dem ger aussi doo wax ban bal ngay tiire. Mhm. mais làmb la ah. Sokh mën na ko attaqué comme Marley mën na ko attaqué comme mën nañu daw daje. Mhm. ma ñëw ci beneen combat bi mu di Ada Fass combat boobu indi coow damay ñëw ci avant combat bi combat boobu noonu CNG yan matukaay la ci jël parce que combat bi bëri na coow trop. waaw Ada Fass Zarko bëri coow ndax enjeu combat bi ni mu demee la mbër yi kenn ku nekk say supporter loolu yëpp baax na loolu yëpp dëgg la loolu yëpp nit ñi gis nañ ko mais ji nga dispositif bi gars yi jël sécuritaire. waa ku fa ñëw tubaab nga régler normal rek te xam ne làmb moom mënut a dépasser làmb ndax seetaan nañu wax dëgg yàlla a a tër seetaan ay Siteu guy gi seetaan ay ay ay ay ay ah, Ama Baldé. Eh, guy bu ne combat bu ne seetaan nañ ko fi. te yooyu yëpp gars yi dañoo jël ay dispositifs yoo xam ni dañoo jël ay dispositifs yoo xam ni kenn débordé wu fo kenn andi wu fa benn problème mhm. waa somba hmm, boobu ñu xool ni dafa mel ni làmb la joo xam ni CNG daf ci xaw a suuraale violence parce que boo xoolee jàkkaarloo yi sax dem na ba ñaari mbër yi mënatuñoo jàkkaarloo ngir côté violence. waaw xam nga lu tax loolu aussi danoo def benn jàkkaarloo boo xam ni danoo gis ay ot ay coow yu fa am gis ay xeex am fa gis coow yu fa am ba pare ñaari mbër yi ñoom yëpp dañuy drainer de foules yoo xam ni danoo xaw a seen supporters danoo xaw a similaire ko danoo xaw a nuroo hmm. ay supporters. waa ñoom ñëpp ay mbëru coow lañu ay mbër lañu yoo xam ne ñi leen di top aussi des fois bu ñu ñëwee ci làmb daa am yenn comportement yoo xam ne dañ koy remarqué quoi qu'on dise loolu tax CNG sóoraale lool parce que nag sa tey moo lay wax sa ëllëg boo defee benn face à face ci benn télévision mu am ay débordement après CNG da ciy jël acte aussi après daal di jëlaat nag dispositif boo xam ne ku fa ñëw régler rek moo la war ndax ku fa def loo wër ta def di ko payee bu soobee yàlla. ma ñëw rek ñëw rek supporter ñibbi moo fa mën a ma ñëw ci communication ñaari mbëri. waaw euh, euh, ñu gis ni euh, combat bi Ada Fass dafa mel ni comme li ñuy wax ci communication am day ñëw jàpp Zarko tegee ne. xamal nga làmb sport laa la wax dans sa globalité day favoriser jeunesse. Mhm. di nga jeune ki gën a nekk xale làmb da koy da koy jox sport da koy jox faveur toujours ci lépp nag discipline yëpp Ada Fass fougue de jeunesse lay demee. Mhm. mbër la boo xam ne day entraîné xale la te dafa mën a bëre dafa mën a bëre léegi nag ci biir loolu moom fougue de jeunesse boobu ci lay waxee rek waaw. Mhm. mais tey ni muy waxee nii ci adversaire bu toll ni Zarko est-ce que tamit aada warut a wàññi communication bi te xam ni am na adversaire mu di Zarko parce que Zarko euh, xam nga ni. bi muy bëree keroog ak mbay guy gi mbay guy gi lu nekk wax na ko mais biñ jàkkaarloo ci géew bi ah lañ doon xaar amul. waaw xam nga mbay guy gi nga wax nag wax Ada Fass bokkuñu sax style de jeu. Mhm. ni ñuy bëree ñoom ñaar sax bokkul. Mhm. Ada Fass moom ko ko ko ko xam-xam ne mën naa bëre te sañ-sañ lay indi. Mhm. boo ñim fi daan ñëpp da leen ñëw indi leen sañ-sañ indi leen du teng bëri ñoom daan leen à la manière dafa mën a bëri. ko am na expérience mais différence d'âge bi da cee am da ciy joué aussi. ndax moo ko Zarko ko mag fuuf man jàpp naa ni xale buy bëree mag ku ko mag fuuf ah moom moo war a indi sañ-sañ. moo war a indi lépp. moom xale bi waaw parce que moom moo war a prouver. Zarko mhm. li muy def moom mooy comme moom mbir mu mag mi ëpp expérience xaar rek comme ni mu defoon contre ay ñoom mbay gi géeg yooyu. ci xaar loo indi rek moo moo la contraire ba jëm cee génn. mais ci xaar boobu dañu gis ni signature li ñu jot a gis Zarko dafa topp Ada Fass ci communication am dem ba mel ni commencé ak moom est-ce que loolu baax na ci mbër mu toll ni Zarko war a bëreeg sa rakk. ah waaw kooku nag wax dëgg yàlla man moom ñu koy ñi ko jege di ak moom war nañoo wax ak moom ni ko. mu gën a dal quoi parce que mbër nag boo ko magee da nga koy magee dara. boo ko jiitoo ci làmb bi da koy ëppee expérience boo xam ne bañ ko topp ci ci ci ci terrain bi mu lay woo. Mhm. mais boo ko ci toppee bërewaale ko ah man ngaa gis lu la bett de. ji li ñëwal ma ci état de forme ñoom ñaar ñaari mbëri. Zarko mos a ñàkk forme Zarko defe naa boo entraîné wul sax noonu lay mel. Mhm. ñu bari ñu ngi jar ko ci gis ko ci forme boo xam ne da koy gis rek ni Zarko il en pleine forme Zarko même bu entraîné wul noonu la mel. bind la foo ko fekk mu ngi ak forme. Mhm. mais Ada Fass gis naa ci moom chaque combat combat ba ca topp day évoluer te loolu bëgg naa ko ci mbër bëgg naa mbër bu bëree combat bi combat ba ca topp nga gis nu yokkaat na. Mhm. am na lu mu liggéeyaat mais bëgguma mbër muy bëre di dellu ginnaaw ci forme non non non. Mhm. liggéey na lu bëri Zarko. liggéey na lu daan Zarko. ça c'est ñoom ñaar ci wàllu ci wàllu xeex. kan moo ëpp avantage. ñoo nu ñuy xeexee kenn ragalu ci kenn du ci dellu ginnaaw. xarab rey dee koy jeexal la ñuy bëri ñoom ñaar ci biir lool na ku ci juum rek ka ca des bu la ëppee bëri da lay daan wala mu ëpp la condition wala mu gën laa liggéey. ci wàllu bëri. waaw yaakaaroo kan moo ci ëpp avantage. ci bëri bi ah, bëri bi rek jaxasoo bëri man jàpp naa ne Ada fas moo ëpp avantage ci bëri bi. foo ko teg. waa ci seetaan seen i ñoom ñëpp di début jusqu'à la fin ñoom ñëpp seetaan naa seeni i seen i seeni i seen i seeni i mais ci ni ñuy génne ci combat. ak ni ñuy bëree ci curuxu curuxu techniquement xam naa ni Ada Fass am na qualité yu daan Zarko man nag ma noonu laay analise ko jën di dis ni kii moom man kii wala kii mooy daan kii mais man ci bëre qualité yi Ada gis naa ko moom laa gën a gis ci bëre kon Ada Fass combat bii boo ko doon conseil ci wàllu bëre mu favoriser ko xeex bi. waaw non combat bi moom. Ada boo ko doon waxee Ada Fass nekk fi di xeex jëmale suba Zarko nekk fi di xeex jëmale suba bëree koy jeexal ci bëre leen jëm ki gën a pare physiquement rek moom moom man man man man man na daan ci combat bi. parce que combat bëri na ñaari bëri ñaari bërikat lañ dañuy songoo bëri làmb ji bëree koy jeexal kenn du ci dóor sa moroom sax mu dem àll dañuy bëri ci bëre lay jeexe man maa la wax loolu. combat bi fan la mën a yóbbu Ada Fass. Ada bu génnee fii nag wax dëgg yàlla. day daal di dugg dugg ci zone bu neex ah. Eh, génne que duñ ko jox guy gi. ah <laughs> man de maa aay si kon si ci booy bi yéeg. Ada bu pare woon moom moo aay ci booy bi yéeg. puisque Ada Fass tey bu pare woon ma ci fayee lu weex tal xam nga da koy daal di rek. def ko lii de exclusivité la Ada Fass bu pare Ada Fass guy gi nag xam nga ne si te guy lay dawanaat rek loolu bu boobaa it amul problème ah. booy bi liggéey di yéeg moom mënoo ko fee bàyyi. parce que nag rëbb ca coow la quoi man bëgg naa mbër moo xam ni da ngay bëre am coow boo amee moom combat coow lu ni kur mu doon événement jàppal bàyyil dina ko daan du ko daan nangam nangam mais lu ne ne mu bëgg ko lu nooy nepp bëgguñu ko. kon pare nga pour Ada Fass bu génnee ci Zarko bu na ko proposé nga jël ko. waaye yow. Ada Fass buy génn dañuy cib liggéey lan nekk na ko jar rek. ñun cib liggéey la nekk man du ma ni benn mbër yaa yaa man diw te daanu googu man ma fayalee loo xam ne sama ku ne sa kër ngay yóbbu li ngay am. nit ki mbër mi moo xam train de vie am moo xam li nekk ci ginnaaw moo xam ñaata nit lay dundal moo xam ñaata ñoo yaakaar ci moom bañ loolu nit xaalis bi weex tàll lu ko gën a dangereux amul. parce que da ko koy bañ loo ba pare pëtëxal ko mbër ma doo xam lu muy dund mu am kersa te mënul ñaan wala muy wër di lebi comprendre nga loolu tax mbër muy yéeg. boo nekkee ca kaw da nga koy may loxo say mag say say mag da laa mayoon loxo ba nga egg foofu. Mm-hmm. làmb sax amul may loxo Ada Fass moom bu daanee zar ko. Mm-hmm. xolal fa mu taxaw leen koy fekk ndax mbër mu jar la ba pare te rëbb ca coow la léegi ak làmb dootul ak njàmbaar de mhm. du njàmbaar du mhm. bët yu xong du diw fi ëpp doole du diw moo fi gën a néew yu defe mhm, làmb da ngay am coowal làmb gars yi jël la amoo coowal làmb boo dee xataraayit fee lan lay teg tey tey Zarko tey Zarko combat bi fan la ko mën a yóbbu ci mu daan wala mu daanu Zarko bu daanee bu daanee nag day daal di wane nag wax dëgg yàlla mi ngi fi daane day wane ni jeexaluma de maa ngi fi jigéewuma kuy jeexal maa ngi entraîné am naa doole am naa coowal làmb mhm. bu daanee ku ko xool bu daanee combat yu baax lay am ci kanamam. de position yu baax lay amaat ci kanamam bu daanee. parce que booy xool combat boobu day xaw a ñëw ci combat Balla Gaye ak Boy Niang. waaw mais xaw xaw na nuroog moom parce que différence d'âge sax sax bii sax ëpp daa mel ni. Mhm. parce que xam naa ni Zarko moom moom mag booy bi. te booy bi moom xale la boo xam ne mi ngi yéeg léegi nag booy bi moom. moom wax dëgg yàlla mooy passé si moo ci am lu muy gagné quoi moom. moom bu bu passé examen bi bu ko gañee moom da koy daal di yóbbu fu sori da koy daal di jox combat yu baax ah day daal di dugg ci ñoom si teg guy gi de ñooñu day dugg seen seen i seen i parce que saa bu jógee ji nga liy dugg ak liy dugg ci stade te nag promoteur bi loolu la bëgg promoteur li mu bëgg mooy xool stade bi mu rafet fees dell mbër mu mel noonu boo ko yoree ko mu laaj ñu jox ko ko. dafa am mbër yoo xam ne nag saraxub làmb la nu wax dëgg yàlla boo dul ab oto wala xaaju oto sax mënoo koo feetal dañ lay yóbbaale rek waaye saraxub làmb ngay doon. <laughs> jërëjëf daa mel ni non Zarko combat bi waa Grand Yoff mobilisé nañ de. waaw non Zarko jàmbaar ngi bëri waxuma ko waaye <laughs> mais ban mobilisation lañ mën a xaar ak aussi ban message ngay lancé ñii di supporters yi parce que làmb jooju ñu bari aussi tamit ñu ngi leen di xaar ci violence ñu bari sax. du fa am. réunion de sécurité ña fa demoon xam na ne violence du fa am ku ko fa jéem tuboo nga teel ko teg sa kër képp koo xam ne sa doom a ngi dem ci làmb jooj mu jóge Fass wala mu jóge Grand Yoff balaa dem ca làmb ja tuboo nga wax ak moom lu leer nañ li ngay wax ak moom mooy boobu mooy tuulee ca làmb ja ba def fa loo fa wërta def ab añ dina la ko indil ba indaleetil la ko boobu coono nag bu ko yóbbee sa waa kër làmb ja sécurité bu doy fa yam caméra de surveillance yaa ngi dem ba EDK ku fa def loo wër te def ciix lan lay def denc la foo xam ne bu ëllëgee boo génnee boo déggee ndënd sax doo fa jaar waxuma la ak di seetaani làmb nit ñi nan nite te rek la làmb làmb rek la booy ñoo war a nekk nit ñoo seetaan si làmb ji kenn daan kenn daanu ku fa dekone xam nga fa nga jëm parce que camarade de surveillance nit ñi nit ñi koy dégg ñëpp wax ak seen waa kër yi dem ca làmb ja sa doom buy dem làmb doo tëb tëb da nga koy briefing ci biir gaale balaa dem xamal ko ni fa nga jëm fees na dell ak ay policier ay gendarme hmm. boo fa defee loo wër sa def bu ñu la yóbbee kenn du jóge fii di la yóbbu lu bañ hmm. mbër mi sant la ko dirigeant école ba sant la ko violence daanul kenn hmm. nit ñi nan nite làmb sport la mënu koo génn nañu dem di sol seen i yére di seetaan di ñibbi waat ci jàmm ak salaam mais boo bëggee dem làmb di dof dof lu buñ la tëjee mbër mi sax du ko yëg du la seet si mhm. yaa fay dee wala nga toog fa ba torox rek wala sonal say mbokk d'accord fi may jeexalee yow tamit am nga combat boo xam ne daj dëpp la mu di sa combat boobu dimanche am nga ci combat mu di bébé guy gi euh, combat boobu lu ci mën wax waaw combat bébé guy gi Tony Junior mhm. kooku est que dàqul sax aada faas waa ji moo ko dàq te combat bu combat combat xale yoo xam ne kenn mosu ci dégg muñal te combat bu nëbb la ci biir kenn mosu ci dégg muñal ñaari xale yooyu Tony Junior ku ne xam nga ko. Mhm. équipe nationale bi ngeen la mu fa def. Tony Junior li mu def ci simple bi ñëpp gis nañ ko daanoogul car macha allah mbër la di taseeg bébé guy gi mu dégg mu ñal nekk école de lutte moo faram doon xale boo xam ne nag wax dëgg yàlla jàmbaari fàkk tëdd la. Mhm. combat boobu moom wax dëgg yàlla promoteur bi ni mu def ba décroché ko sax jaaxal na ñëpp parce que combat boo xam ne la. ku ko beroon mu doon grand combat. combat boobu gars yi dañ waaye sax moo dàq grand combat bi. non ku mu doon grand combat. ku ko beroon mu dàq moo mooy mooy dàq fuuf grand combat. waaw. loolu moom moom moom Sénégal nañ ko xam quoi. d'accord waaw. Euh, mu ngi noonu ah moo nekk euh, sama consultant ni lañ koy defee rek làmb ju am rek dañuy déplacé wu ñëw seet si ko fas yéene waxtaan ak moom parce que vraiment euh, doon na nit koo xamante ni heure bu analysé ci làmb vraiment boo demee ci commentaire sax da sawar. man nit ñi may woo naan ma mais ana consultant ana consultant mu doon loo xam ne li muy wax daf ko teg ci xam-xam teg ko ci réglement te farul fenn aussi donte dirigeant la ji fii Géejawaay mais chaque jour rek euh, ay euh, analyse am vraiment day pertinente ñëpp koy bëgg euh, jili kontaan naa. waaw maa leen gën a kontaan wax ne waa làmb aussi ñi seetaan people 221 yëpp xamal ni ñun làmb rek la ñuy waxtaanee du génn cadre làmb quoi képp koo xam ne wax nañ loo xam ne da lay frustré wala nga defee ni fara tax rek nun ah, duñu waxee foofu dañuy waxe fi nga xam ne rek moom lañ xalaatee bu buñ fa waxee dañ xam ne làmb fii la tegu quoi di wax ne daal làmb yi neex na coow yi bari na mais nin déglu ñi leen di administrer bu nu waxtaanee ñoom seen biir ba pare ba def convocation yi dinañ xam làmb yeeg médical yeeg ñi war a bëreeg ñi wërta bëreek li ci yàqu lépp dinañ ko génne mu leer ci bopp nit ñi ba xam ne lii mooy li waa CNG génne mu leer waaye nit mënta administrer boppam loolu moom mënta nekk. loolu moo tax comme dañoo dënk ñooñu laa mën nañ leen déglu lépp dina leer bu soobee suma borom. Mm-hmm. te bañ di semer doute ci bopp nit ñi quoi. Mm-hmm. parce que nag l'administration et écrite bu lu ci mënti am rek gaa yi dinañ ko bind ko wane ko. Mm-hmm. mu leer nañu quoi. Mm-hmm. combat yu neex jàll suñu kanam. Mm-hmm. violence bi yàlla dimbaliñ ci du am. samedi dimanche arène nationale njar la. ku dem samedi xamal ni samedi neex na dimanche day neex incha allahu rabi. yàlla def combat yi pare jàmm ak salaam benn violence du fa am. yii di ñëw tamit leer nañu ba kenn ku ci nekk xam looy bëreel écrit bu ci nekk xam sa mbër li ko war ci combat bi. tenants ak aboutissants yi quoi. bu kenn semé doute ci bopp kenn. parce que lépp la ñun ko dénk dañ ko saytu wax ci nit ñi fu ñu jëm. Mhm. loolu mooy problème bi. dëgg la ñu ñëpp di di nuyu ñëpp quoi di nuyu ñuy suivre people 221. te xam ne wax dëgg yàlla am fan suy bari sax. fi non seetaane làmb fi la ñuy dégloo làmb fi la ñuy fan suy bari vraiment. yàlla baax na kontaan nañ ci yéen quoi. jërë ngeen jëf mu ngi noonu ah moo nekkoon sunu invité di leen jox yeneen dig daje te sunu yeneen émission xam naa incha allah lundi lundi avant la pendant et après. Mhm. comme wax nañu avant. Mhm. yal na yàlla def après après rek ñu toogal waxtaan waaye ah. jox yeneen dig daje ci suñu yenn émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf.